par exemple CEDEAO comme ni nga ko waxee. c'est un problème sérieux c'est trois sérieux. pays quand même euh, très proches du Sénégal. Mm-hmm. muy Burkina muy Mali. Niger euh, euh, jege nañu Sénégal lool lool lool. Mm. Sénégal lañu. Mm. bon ñu jóge ci euh, mbootaayu CEDEAO ki nga xam ne mbootaay bu gën a am solo ci Sahel ak Afrique de l'Ouest ça vraiment war nañ ci bàyyi xel heureusement quand même que CEDEAO nee na dina def lu ma man pour am négociation euh, ñu bañ a génne noonu CEDEAO parce que mhm. conséquence yu gën a grave mooy ci population bi mhm. ah euh, au niveau amul benn pays ci ñi nga xam ne jóge nañ ci ci CEDEAO mën na yore boppam am amul que que tous les pays comptent sur le commerce entre les pays aucun pays ne peut vivre en en autarcie je mhm. pense que loolu bon CEDEAO war na ci jóg mais aussi les peuples war nañ ci jóg que CEDEAO euh, mu bañ a nekk xeex diggante ñu nekk ci CEDEAO ak ñu génn ci CEDEAO pour pour man vraiment il faut tout faire pour que mu bañ a am xeex diggante CEDEAO ak pays yooyu. Mm-hmm. je crois il faut négocier pour voir comment apaiser la la situation. Mmh. et aussi naka la def ba. bon c' est incompréhensible dañoo toog benn instant rek après affaire yi kenn déggatul dara. voilà c' partie des sanctions de la CEDEAO avec les coups d'état militaire ensuite répercussions sur le, la les conditions de vie nga boole ci guerre bu am euh, au niveau du Mali au niveau du ah. Burkina bon soo ci yokkee génn ci CEDEAO mais population moo nar a mhm. et je pense que foofu il faut que Sénégal quand même euh, am na diplomatie pour mën a rétablir les ponts. Mhm. pour man que Sénégal am nañu euh, diplomatie am nañu expérience te. Burkina, mhm. Mali c'est comme le Sénégal. comme le Sénégal vraiment. donc nous on devrait jouer en tout cas une carte diplomatique pour faire baisser les tensions ñu jéem a seet euh, des solutions les meilleures. Mm et pour la CEDEAO et pour ces pays. Mhm.